mais tey moytonte bi parce que daa am Sénégal yu bëri dañuy wax ne que dañuy mbëri dañuy moytonte maanaam du ma jël diw du ma jël kii kii deful kii deful lii est ce que tey gis nga ci làmb ji ay xale yoo xam ne war nañu bëri ak VIP ñuy wax ne ay VIP làmb lañ. mais loolu dafa dafa dafa feeñ sax léegi làmb ji yaakaar naa grand contre petit moom moo war a am sax. kon yow boo ko doon def noo koy defee. grand co grand yi ñan la. grand yi quatre grands yi yi nga xam ne ñoo nekk première division actuellement làmb ji. mais c' est c' est c' moo nekk première division il a il roi des arènes Balla Gaye 2 il roi des arènes Bombardier il est il est roi des arènes Eumeu Sène il est roi des arènes quatre rois des arènes actuellement moo amoo Sénégal yu takk ngeem quatre rois des arènes actuellement moo amoo Sénégal mooy ñeent ñu mën la limal Balla Gaye 2 Eumeu Sène Bombardier ak ak ak ak Modou Lô donc ñoom ñooy ñoom ñooy l'acteur roi donc carte mooy première division boobu donc ñooñu tey war nañu mun a may sens jeune pouse yi nekk si ginnaaw jeune pousse yi ñal la ñoom rëg-rëg ñoo fi nekk rëg-rëg mu si seen kaw rëg koo koy jox ci ñoom rëg-rëg rëg-rëg ku mu munta am baax na mais ñu dama xam ne ñooñu duñ ko jël waa première division bu duñ jël rëg-rëg lu tax dañ koo ragal wal lool du jël rëg-rëg Balla Gaye 2 du jël rëg-rëg ma Sène du jël rëg-rëg peut-être kenn moo ko fi ñawee jël mooy Bombardier parce que Bombardier du delloo avance Bombardier boo ko joxoon rëg-rëg du ko delloo mais loo xalaat ne moom la ñu war a moytu ci rëg-rëg mais rëg-rëg jom ji dafa am rëg-rëg boo ko gisee rek boo ko gisee muy bëri gis ko si étoile bu mu nekk dafa nekk yoonu nekk roi des arènes non da nekk day nekk roi des arènes waaw c'est un futur roi des arènes parce que si loolu lay doxee si loolu lay jëfee si loolu lay waxee si entraînement rek nëbbutu lëlu di compétir benn mbër ëpp ko fi doole ëppoo ko fi gàllaaj mais ni ba gars bu ñu déggee nga wax nii ci Reug Reug maa du ñu ngaa far ak moom far <laughs> Reug Reug de lenn daal la ñu bokk sant mooy kan Umar waa kan la sant jeex na mu dëkk Caaroy Géej ma dëkk Ginnaaw Raay mais du ñu sax fréquente mais damay wax qualité am rëg-rëg rëg-rëg c'est un roi des arènes musoon naa ko wax yaa trois ans si ginnaaw jour bii rëg-rëg gi Yékini di bàyyi làmb ñu invité ma à la TFM loolu léegi sa fait quatre ans wala trois ans j'avais dit que rëg-rëg sera le roi des arènes archive yaa ngi fi am na solo léegi bu dul rëg-rëg tamit comme moom nga wax mais amaana yeneen ñeneen ñoo gis pour ñu war a bëri ak mag yooyu waaw am na ñeneen Sa war na war na war na mën a dugg seen biir Boy Niang 2 war na mën a bëri ak Balla Gaye 2 Boy Niang 2 war na mën a bëri ak Modou Lo dafa bëri ak lag de Guiers euh, nii la moom nii la moom daan ko par avertissement donc